mbokki jullit yi mbokki taaliba yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di jiital ci ziyaara bi ak nuyoo bi kilifay jataay bi sëriñ ahmadu al badawi moom cheikh mouhamadul fadil di jaare ci moom di siyaar mbooleem rawdu rayaaxin gépp ak boroom xam-xam yu baax yu sell yi fi daje yépp waaye di siyaar itam kilifa bërëb bi di suñu waajur di Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne man dama bokk ci ak njabootam ndax digganteem ak sunu waajur wa ñu doonoon benn ak sëriñ moo Guèye mi nga xam ne maa ngi koy séen léegi ma leen di dogal ngant xëy na kàddu gi ak jataay bi yëpp daa am ci seen ndigal ginnaaw loolu nag noo ngi leen di ndokkeel di leen siyaara ci weer wu sell wi nga xam ne mooy weeru safar di weer woo xam ni bari na yu ci daje bari na liggéey yu mag yuñ ci tàmbali yàlla def ca barke xam ngeen ci safar ci la rasulullahi sallallahu alayhi wa jóge woon Makka gàddaay jëm Madinal Munawwara ci weeru safar ci la sëriñ bu mag bi tàmbali woon tukkeem boobee ci lañ ko tàmbalil nattu ya muy safarul xuruj waaye pay gi itam ci la ame woon muy safarul xaraaj xam ngeen ne xeex bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam njëkk a xeex ci diine ci weeru safar la ko la ko la ko tàmbale woon la ko defe woon muy xaswatul abwa wala xaswatu waddaan ci la jële woon itam soxna xadija bintu xuwaylid soxna ñu am ca soxna faatima ci weeru safarit ci la ko sayidna ali yu jële woon njabootug rasulullah sallallahu alayhi gi nga xam ne ñooy leerug suuf si itam gu barkeel goog yi ci ñooñee la meññi ko lañ lañ la moo leen meññ waaye ci la wéra dig rasulullah sallallahu alayhi wa sallam itam tàmbali ci weeru safar kon weer la bu bari ay xew-xew bu bari ay mbir yoo xam ni yuñ ci tàmbali la ak ay coona leeg-leeg ak ay jafe-jafe ndax gis ngeen ne al ashhurul xurum ci lay jeex ci jamono yu njëkk yi xeex yi dadaa tàmbalee ci weer wi bu ko dee moo tax ñenn ñi sax daa ko gaafal waaye weer wu am solo la boo xam ne noo leen ci ndokkeel rawatina noonu murid yi muy sunu weeru bopp di weeru màggal Tuubaa ginnaaw loolu nu xam le ne waxtaan wi danañu waxtaane taw muwaasafaat muwaasafatul muridi saadiq fi taalimi cheikh al xadim waaye njëkk ñuy dugg ci melo yi yi nga xam ne moom la murid bi war a làmboo tax ko ngir mu mën a nekk al muridu saadiq ba Sëriñ doon Euh, yar doon ca woote jëm ngir nga mën a bokk ca ñooñe am na melo yoo xam ne mënta ñàkk ci yow am na yoon woo xam ne mënoo caa ñàkk jaar am na ndigal yoo xam ne faw nga jëfe ko waaye njëkk loolu dañuy wax ne ak murit ci biir tasawuf lay lay tàbbi tasawuf ci biir diine ji lay tàbbi diine ji itam ku ne xam na ne jenn diine ji la sunu borom tabaraka taala bi mu wàccee mbindeef yi ak doomu adama yi ci kaw suuf dafa am lu mu warloon teg ñoom wax na leen ne waxtu ne dinaa leen indil sama njub topp doo réer doo texee di ku ko topp doo am lenn looy ragal mbaa tiit fa imma yaatiyannakum minni hudan fa man tabia hudaaya fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuuna waxaat feneen ne fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa kon njub googu yi nga xam ne suñ boroom waraloonte naag mbindeef yi ne faw dina leen koy wàcceel ci kaw suuf ngir ñu jaar ca yoonu njub woow yi mooy li doomu aadama yi xeeñtu mooy li sëriñ si xeeñtu mooy li gaa yu baax yi xeex xeeñtu mooy la yërënte ya doon jàngale itam njub goog yi mooy diine lislaam di jenn diine joo xam ni yonente yi fi jaar yépp ci lañ doon woote jëm sunu boroom moo tuddee ñi ko gëm al muslimina huwa sammaakumul muslimin min qabl yonente ya fi jiitu woon itam ya ci sayyidina noox alayhi salaam mi njëkk a yebal ci aw xeet ngir mu woo leen jëme ci njub googu dafa waxoon ne wa umirtu an akuna min al muslimina sayyiduna ibrahima alayhi salaam ak doomam ja ismail ba ñuy ñaan dañoo ñaan suñu borom ne rabbana waj'alna muslimayni lak sayyiduna ibrahim ak sayyiduna yaquba ñoom ñëpp ku ci ne ba ngay dénk sa njaboot danga leen a dénk ne fala tamuutunna illa wa antum muslimuuna sayiduna yuusufa gis nañ ko muy ñaan tawaffani musliman wa alxiqni bi saalixiina sayiduna muusa noonu alayhi salaam wax na ne yaa qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina kon lislaam jooji mooy jenn diine inna diine inda allahi lislaam mooy diine ji sunu borom jàppe diine yonente yépp daa ci woote jëm mooy njubug suñu borom gi tabaraka wa taala nga xam ne ñu baax ñépp ci lañ mas di ne yonente bi daana wax ne al anbiyaau ixwatun li allaat ummahatuhum shatta wa diinuhum waaxid kon diine ji jenn la masa doon wa man yabtaxi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laaxirati min alxaasirina nga xam ne ku ca jaarut jaar nga ca yoonu sànku ku ci jaar nag jaar nga ci yoonu njub te faw di nga àgg ci ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala mu yéex ak mu gaaw diine jooj yi nag buñ ko xool mën nañoo wax ne ñetti xaaj la te loolu sayiduna jibril alayhi salaam sa ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallama ame melow doomu aadama ñëw mel ne kuy jàng fi kanam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ñetti laaj ba ñeent mal imaan mal islaam mal ihsaan ba ku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tontoo ba noppi mu génn dem yonente bi ne dabal leen ma ko ba ñu génnee gisuñu ko mu ne leen hada jibrilu jaa yuallimu nnaasa diinahum dafa ñëwoon doon jàngal nit ñi doon leen xamal seen diine ci la borom xam-xam yi tënk ne kon diine ji ñetti xaaj yooyu rek la iman islaam ihsaan laaj na ko beneen laaj muy mata saa boo xam ni borom xam-xam yi baluloo nañ ci yeneen i xam-xam yoo xam ni jàppe nañ ko xaajub ñeenteel waaye li ñu soxal mooy ñetti xaaj yi kon diine ji am na wàll goo xam ni wàllu ngëm la moom la sëriñ bi waxoon ne aqsaamu diini rabbina al imaanu wa baadahu al islaamu wal ihsaanu am na wàllu goo xam ni wàllu ngëm la mooy gëm ne yàlla am na ak la ca aju lépp gëm ne malaay gëm malaayka yi gëm yonante yi gëm téere yañ wàcce woon ca ñoom gëm bis penc gëm ab dogal yooyu ak mboolem li ci aju ci xam-xam muy lu yaatoo yaatu am na boroom xam-xam yu ko yittewoo ñu tudde leen ulama u tawxid moom la sëñ bi tënkoon ca tasawudu shubbaan waxoon ne imaanukum an tu'minu billahi wa bilmalaikati jundillahi wa bi jamici kutubihi almunazala wa yowmihi alaaxiri yowmi zalzala wa bi jamici rusulihi wa bilqadar min xayrihi wa sharrihi xaytu sadar waaye am na beneen xaaj nag boo xam ni ci diine ji moom la ñuy wax al islaam moom la ko jibril laaj islaam nag mooy wet gi nga xam ne mooy jàngale jaamu yàlla yi cër yi def ak jëflante bi dox ci diggante nit ñi ak mboolem lu aju ci jaamu rek xaaj bi koy jàngale xaaj bu rëy bu yaatu bu bari ay fànni xam-xam yu ca ne ña koy jàngale nag ñoom lañu tuddee al fuqahaawu moom la sëñ bi waxoon ne islaamukum dikrul ilahi wasalaa wa sawmu wal hajju kadalika zaka ñetteelu xaaj bi nag mooy ixsaan rasulullahi bi ko ko jibril laajee da ko wax ne ko an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak muy xaaj boo xam ni mooy jàngale mbiri xol yi jëfi xol yi yëg-yëgi xol yi doxub xol bi ak maqamaat yi ndax ci misaal nga xam ne dëddu lu baax la ak nga dëddu ñaar yooyu bokkuñu nga xam ne toroxlu lu baax la ak nga toroxlu ñaar yooyu bokkuñu loolu lañuy ñu ay maqaamaat ak axwaal yooyu ak xeeti xam-xam ulum wax bi yoo xam ni am na ñu ko jagoo di ko gëstu tësiil ko delloo ko ci alquran ak sunna si yonente bi xam-xam boobu ña jàng ak a jàngalante ñoom lañu tudde as suufiya sëriñ bi gàttal na ko wax ne isla ihsaanukum an taabudu dal minani ka tarawnahu bil ayuni in lam takunu qad raaytumuhu faqad raakumu fa raqibuhu tasawuf boobu yi nag maanaam sëriñ bi imaan da koo firee dafa wax ne xam-xamu tawxiid moo koy jàngale islaam xam-xamu fiq moo koy jàngale ixsaan xam-xamu tasawuf moo koy jàngale fa awalun yasixu bi tawxidi wa thaani bi tafaquhi lxamidi wa sixatu thaalisi bi tasawufi faljamcu waajibun bila tawaqufi kon ñett yooyu imaan islaam ixsaan mooy tawxid fiq tasawuf muy ay xam-xam tasawuf nag muy al ixsaan bu ñu seetloo mboolem li ci rot ci alquran ak sunna day mel ne génnut yett ñett yii mooy diggante jaam bi ak boroomam an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak jaamu yàlla ci ñaari maqaam yi yonente bi junj foofu mooy maqaamul muraqaba ak maqaamul mushahada xam ne yàlla mi ngi lay gis di gis sa lépp sa dara ump ko nga war koo bàyyi xel loolu mooy muraqaba dem nag ba yow nag ngay gis ak di janloog màggug sunu borom gi tabaraka wa taala loolu la ñuy tudde mushahada loolu mooy genn wetuk ihsaan di genn wetuk tasawuf geneen wetuk ñaareel gi mooy gi dox sa digganteeg nit ñi ak mbindeef yi la ci jiitu mooy say waajur waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsaanan ihsaan day dugg foofu day dugg ni ngay doxe ak ni ngay jëflanteeg say waajur ñi say jegeñaale jirim yi miskin yi jullit ñëpp ñi nga ci bokkal ay déggin nag ñi nga ci bokkul ay déggin ak mbindeef yëpp sax loolu jëflante boobu it ixsaan da koy da ciy dugg da koy lijjanti da koy jàngale itam ixsaan ba tey day jàngale li ngay jëf li ngay liggéey xereñe ga nga ko war a xereñe rafetal ga nga ko war a rafetal sellal ga nga ko war a sellal def gi nga war a def ngir yàlla loolu it da koy jàngale yii nag bu àndee moo lay jox jullit boo xam ni bu sotti lay doon bu mat ci jikko ak ci meloom ak ci jëflanteem ci biir société bi idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nga xam ne ihsaan boobu da koy jëfandikoo ci lépp digganteem ak boroomam dara du ca wàññiku waaye digganteem ak nit ñi itam day doon yërmaane ci biir nit ñi doon jàmm ci biir nit ñi doon njariñ ci biir nit ñi te du ci xool ku jege ak ku sori kii walla kee li muy jëfit léppay sell ndax yonente bi waxoon na ne inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqina beneen xadis ba wax ne inna allaha kataba al ihsaana ala kulli shay ihsaan day dugg ci lépp foofii nag jaam boo xam ne nag dox na ba mën a dund dëgg-dëggi ihsaan boobi kooki mooy yeyoog mooy yeyoo cofeelug suñ borom inna allaha yuhibbul muhsinina wallahu yuhibbul muhsinina mooy yeyoo itam suñu borom defal ko teraangay maaya xaasa inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muhsinuuna te li muy jëf lépp it suñu borom terale ko nangul ko ko seppil ko sikk yi sellalal ko ko ba mu yelloog jëmm mu nangu ko inna allaha laa yudiicu ajra al muhsinina boole koog nag yeneen bushrayaat yoo xam ni ña koy dund rek ñoo ko mën a xam mooy wa bushra lil muhsinina loolu moo leen di di yóbbu ci ñu jegeenteeg ambiyaaw yi ak mursaloon yi salaamun ala ibrahima kadalika najzi almuxsinina salaamun ala ali yaasina inna kadalika najzi almuxsinina kon loolu dañuy dégg ne lislaam du jenn du benn tolluwaay du menn mbirit ay tolluwaay la yu wuute nit ki buy door a jug mën naa nekk ab jullit nekk ab muslim waaye du nekk gun ab mu'min man ngay julli di woor di def lépp ndax da nga caa juddu gi say waajur di ko def waaye dëgg-dëgg ngëm duggagut sa xol jëmmi dox wuti yàlla subhanahu wa taala nga xam ne murit bi yitteem mooy dox wuti ngërëmul yàlla idil muridu laa yuridu abadan gayra rida rahmaani dox boobu yi nag dafa am ay yoon yoo xam ne ñoo ko yittewoo maanaam tasawuf moo koy jàngale ci biir diine ji waaye ci biir tasawuf nag dafa am ay turuq yoo xam ni ña ko jiite rasulullahi sallallahu alayhi wasallam moo leen jox ndigalu tërbiya ak jàpp ci loxoy jaam yi yóbbu leen ci suñ boroom ci biir turuq yooyu nag suñ borom taw feexal ci tariqa boo xam ni ni ma ko waxee sanat bu gàtt la am gën a gàtt li sanat ci kaw suuf waaye itam di tariqa jaamia bu boole masharib yépp ak usuli turuq yëpp di tarixa boo xam ni dafa boole diggante jaamu yàlla ak dëddu ak dund gu ñangas ànd ak nag sukkuru ak farax ku ne xam ne loolu ay masharib la ci biir tasawuf waaye di tariqa bu xam-xam itam sëñ boo waxoon ne indi ujaahidu bil mi wa bit tuqa di tarixa bu bari ay ngëneel te barkeel te ki ci ne bari ay tawféex yu ko ciy dikkal bokk na ci li sun li sëriñ bi wax ne suñu borom defal na ko ku ànd ak moom li gën a kawe ci li ngay yaakaar ci suñu borom danga nga ca jot faaza muridun laada bi bi ma yafuuq maa dannahu billaahi jaariya rafiq moo tax nag kon mu mat a xam murid bi mooy kan sëriñ bi xamal nañu lan mooy ak murit wax nañ ne murit ibaratun an qasri iradati almuridi ala iradati alxaqi jalla wa azza duna liltifaati ila gayrihi min saairi al mooy sa bëgg-bëgg nga seeyal ko ci biir bëggug suñu borom tabaraka wa taala loolu moo di murit am na feneen fu wax ne sa bëgg-bëgg na doon def xaqi waxtu wi nga toll waxtu wu ne am na xaq am na lum laaj nga fexe ba def ko ca loolee da ko way sax wax ne xaqiqatul muridi man yan yanqalib bi xukmi bi xukmi waqtihi wala yartaqibu amaamahu waqtan fa na daaka yamnau min islaaxi ma hunaaka am na fuñ ko laaje moom sëriñ bi mu ngi ci maj moo ab sëñ bi gàttalu ak murit mu wax ne ak murit bu xasee amub sëriñ day topp ndigal te du diingat ci kaw mbaa ci suuf day rafet njortu itam ci lépp day def ndigal yiñ koy digalit da koy jëfe kem kattanam di moytu tere yi kem kattanam ànd ak nag di sàmm teggin ci lu fés ak ci lu nëbbu ci bàyyi lépp lu amul njariñ ak di jëf ak wax aw yiw te di ko yéene itam am na feneen fu ko melale iraada mooy dafa wax ne xaddul iraadati bi qawli saada tarkul muridi maa alayhi al aada summa rujuuhu ila al muctaadi mooy murid bi dootu am aada aaday boppam ak doxaliinu boppam yépp da koy teg fële ñëw nag ci doxaliin ak bëggug sunu borom tabaraka wa taala murid bi itam sëriñ bi wax melal nanu ko wax ne wasful muridi tarkuhul iraada li wajhi man yafalu ma araada man lam yurid shay'an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu boo demee ba bëggoo lenn amoo jenn yitte ju may jëmmi suñu borom tabaaraka wa taala moo la ñor ci lépp moom ngay dàkk di dàkk ngërëmam ci lépp yow boo murid nga waaye li fekk nag yaa ngi am geneenu bëgg dese nga takunu muridan summa fiika iradatun fa in lam turid shay'an fa anta muridu murid itam mel na ne waxtu wi tënk nanu waaye xeeti murid yi bari nañ sunu borom bokk na ci turam al murid ku xam na ko wax na ci alxuraan ne inna rabbaka faalun lima yurid rasulullah itam dees na ko melal ci ak ab murid sunu borom melal na ko in araada nabiyu ci alxuraan gis nga ko turiidu loolu gis nga ko ci alxuraan wala taadu aynaaka anhum turiidu sëriñ bi itam melal na boom ci ne am murid la yaa xayra man rabba muridan laa yurid siwaaka yaa faala kulli ma yurid kon murid dañoo bari wute noonu la tolluwaayu murid itam wute am na murid yoo xam ne itam murid yi ci des nga xam ne bokkuñoo ñii ma tudd itam seeni seenu murid daa wute am na ñoo xam ne yàlla rek moo leen ñor la suñ boroom waxoon soxna yonente ba ne in in na turidna allaha wa rasulahu wa daara laaxira mooy ñoo xam ne yàlla leen yor akub ak lu jëm ëllëg alaaxira waaye am na ñoo xam ne adduna moo leen ñor minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxira waaye suñ boroom nag ñim gërëm seenu murit mooy ñi nga xam ne yàlla rek moo leen jox mooy yuriduuna wajhahu dalika xayrun lilladina yuriduuna wajha allaahi wa ulaika humul muflixuuna sëriñ bi nag dara wax ne suubu yoonu murid mu yoonu gaa yu baax ya lu am solo la waaye bala nga koo def am na yoo xam ne war nga koo njëkk lijjanti mooy na nga nekk ab jullit bu gëm yàlla di rafetal njullit gi dooga nag wutib sëriñ kun muminan wa musliman wa muxsinan in rumta sayran lil ilaahi tax su na am na feneen fu wax ne li jëkk war mooy wutal xam-xami pas-pas xam-xamu tawxiid na ko wut ba am ko ba xam kan mooy sunu borom tabaaraka wa ak lim moom ak lim yelloo ba saa yoo demee ba sóobu yalay feeñu waa doo daru soxbata kulli faasiqi koo gis itam mu di ab na ma yàlla maa ngi jégul ci kàddu gi ab li ñëw ab saay-saay koo xam ne tey day ñemmeerlu sunu borom ci ci di ko moy kooku it nee na duub sëriñ na nga ko fa ne ñukk waxtabir rijaala qabla suxba wala tusaaxib xumuran aw daa rax ba ku bëgg adduna mbaa ko xel ma neexut yooyu it bu ànd ak ñoom ñi ngay àndal sëñ bi nee na mooy man talabal wusuula lil jalili falyactasim bi sunnati rasuli bi an yulaasima mutian laa yamiil fi dahirin wa batin an sabil na nga ñëkk a ngoy ci sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bu la dara teqaleeg moom waaye ka ngay àndal na nekk kuy topp yàlla ku ca ngoy itam mu kammilin yàq fu rasul waxu naa ko léegi koo xam ni daa mat te mën a matale ba noppi nag teg tànkam fakk rasul la sallallahu alayhi wasallam tegoon wax na sëñ bi wax na kooki naka la war a xëccee nan la nan la war a wommate yaquuduhu bil ilmi wal ibada bii yurabbihi bi tarkil aada dalay womat ci xam-xam ak ci jaamu yàlla di la ci teete di la bàyyiloo aada yi ak lii sa bakkan bëggoon yóbbu la ci bëggug suñu borom a ko taala te it na nekk ab laabirekat fasluka ala yaday murabbin naasixi na nekk itam ku amuk càll la maanaam bul jokk ci ku jokkuwul ku jokk ci sëñ bi càll la gu dem ba ca rasulullahi mun ci ñàkk ci yoon wi fa man bi fa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal jëmmi jaayanteeg ànd akub sëriñ ak yooyu yëpp nag alxuraan ko jàngale ak sunu si yonte bi indi woon naa ci ay mbir yu bari waaye dama koy weesu sëriñ boobit am na noo war a ànd moom ci ay teggin te waroo gaaw a beru yooyu yëpp sëriñ bi wax na ko wax na ne fa kullu man qabla wusulihi i'tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaxuudu fi bahri rada wala yajiu minhu shay'un abada bul gaaw a beru bul gaawa a jàpp ne mat nga dara bul jàpp sax ne yow aslan doon nga dara moom waaye nag sëñ bi wax na itam ki ngay àndal it bul ko topp mukk ci mooy yàlla wa bil maasi la tuti maxluqa sëriñ bi itam am na fu mu la war a jaarale mooy jéem laa tàggat ci nga jihaad ak sa bakkan ndax sëriñ bi sëriñ mag bi dafa wax ne nit ki mënta àgg ci ngërëmul yàlla te bakkanam nooyut faw nga nooyal sa bakkan jihaad ak moom bu wér génn ci moom sikk yi dugal ci moom mbooleem yiñ taamu ndax dafa am yuy buuf ci xol li alxuraan di tuddee baatinul ismi wa daru daahiral ismi wa baatinahu baatinul ismi mooy lu mel ne rëy naw jëf waru yëg sa nay ak mer ak ngistal ak kiñaan ak coxor ak yi ni demee yooyu lu mat a génne ci xol bi la sëñ bi mooy mooy lijjante yow ba génne ko li muy def ci yow nag mooy dëggu ak ngëm gu dëgër ak yaqiin ak dëggu ak sellal ak wakirlu suñ borom ak bëgg suñ borom ak gërëm ko ci lépp ak ragal ko ak di jëfandikoo xalaat ak di yaakaar suñu borom tabaaraka taala ak muñ ak yi deme loolu moom la wax wax taxliya mooy jiitu lii topp ci lii nag doog a ñëw lii mooy leerug suñu borom doog a mën a wàcc ci sa xol leerug ngëm aw man kaana mayitan fa ahyaynaahu wa naa jaalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas sëriñ bi wax na bakkan ni mu doy waar nga xam ne day bañ a topp yàlla njëlbeen gi soo ko ca gaa mu fexe ba indi ca ay rax mu rax ca ay mbir loolu boo fexe ba seppi ko ci mu sóob la ci bëgg laa nawloo sa sa bopp ak yigloo la sa bopp yooyu yëpp nag yu mat a xam la sëñ bi gàttal na ko ci wax ne bakkan boo ko bëggee tàgg boo ko bëggee man danga koy sëf lu ko ëpp ci ay jaamu yàlla xañ ko itam ay bànneexam te dimbali ko nag suñu borom ndax bu dee yàgg bakkan bi rek mu nërmel la moom am na ay sart yoo xam ne mënta ñàkk ci nga dog li ñuy wax aqabatu nafsi la njëkk mooy ñime téye làmmiñ noppi ak ñime xiif xiif bu dugg doomu ak di dundal guddi gi ak di beru léeg di jaamu yàlla ak tudd yàlla tudd gu bari ak fexe ba sa biir sell sëriñ bi daan wax ne sëriñ mag bi daan wax ne am nañ juróom benn kiiraay yoo xam ni ñooy dog murid yi ñoo tee murid ya dem ba ca jëkk dafa wax ne qul kasratul akli wa kasratu sharaab summa mulaqaatul baraaya bi istihaab gu bari naan gu bari jaxasoo bu bari wax ju bari nelaw yu bari sàggan ci tudd yàlla nee na yii moom mooy kiiraay yi dog murid yu baree bari moom moo tax murit gi am nay melo foofu nag lañuy ñuy ci dëgg-dëgg waxtaan wi waaye mel na ne waxtu yi moom li ci ëpp dem na meloy yu murit saadix la ca jiitu mooy mu xam ne ñi muy tuddoo ñi muy tuddoo dañoo am ay usool dañoo am ay ay ay ponk yoo xam ne ci lañ teg seen lépp Sëñ Tuubaa wax na ne inna usoolal qawmi sabaatun tura atxafana bi kulliha rabbul wara al ictisaamu bi kitaabillahi wal iqtidaau bi rasulillahi aklul xalaali wa jtinaabul maasiya xaamisuha kafful ada faltakfiya saadisuha al adaau lil xuquqi wa tawbatun min jumlati xuquqi nee gaañi seen mbir fii la tege juróom-ñaari mbir la ngoy ci téeréb sunu borom bi tabaraka wa taala ak ngoy ci ak roy ci rasulullahi wa sallam ak di fexe ba li ngay jëfandikoo lépp lew di lekk lu lew moytu ak moy yàlla bañ a lor benn mbindeef mbaa lenn ci kaw suuf bul sëñ Tuubaa bokk na ci aw doxinam mësta sax mellantaan juróom benneel bi mooy xaq yi nga ameel ñi nga ko ameel ñëpp nga jox leen ko sa borom am na xaq ci yow yu yoo xam ne am nga ko ci am nga am dox na sa digg ak moom nga jox ko ko ba mat sëkk sa digg ak rasulullahi sa digg ak sëriñ bi sa digg ak say waajur sa digg ak mbokki jullit yi sa digg ak mbokki taalibe yi kenn ku ne xaq yi mu am ci yow nga joxe ko loolu ci cosaani ponk yi nga xam ne ci la ak murit lalu ci la bokk bokk ko juróom-ñaareel mooy saxoo tuub waxtu ne nga yëg ne yow ci càggante nga ne di tuub saxal ko nag boole ci sëñ bi waxoon na itam ne mbir mi am nay ponk yu ko téye yoo xam ni boo ci màbb rek màbb nga maanaam mbaar mi dang daay na arkaanuhu naarifu minha sab'a sumtan wa juuan wa jtinaabal bidaa wa tawbatan wa saharan wa uzla summa istiqaamatan fa niamal xasla wa zaada sayxuna al yadaali thaamiyan taqwa al ilaahi zahiran wa batina mooy tuub ak di dellu ci suñ borom waxtu ne di dundal guddi yi ak di beru di jaamu yàlla léeg-léeg sax ci istiqaama ak di ragal yàlla nag ci lu nëbb ak ci lu feeñ loolu mooy ponki ak murit jikko yi am murid itam sëñ bi leeral nañu ko murid bi am na jikko yoo xam ne mënta ñàkk ci moom moom sëñ bi wax nan ne lu gudd la mooy la tàmbalee wal xaasilu suufiyu aalimun amil sama sëriñ bu baax ba si Abdul Xuddoos bu ma saa wax bayit yooyee di wax laysa tasawufa lub sa suufi tarqauhu wala lub sa suufi tarqauhu wala bukaauka yan xannal mugannuuna wala siyaaxun wala raqsun wala tarabun wala tiraabun day wax ne tasawuf foofu ak taalibe bi la koy fire ba tax na fii it mënoon nañu ne kon sëñ bi li mu bëgg wax fii mooy ab taalibe mooy ki xam te jëfe lam xam te sax ca te du jeng mukk loolu moo koy jural nag mu sell nëx-nëxi xol yépp génn ci moom mu mujj fees dell ak ay xalaat yoo xam ne lépp day jëm ci boromam mu mujj nag dogu ci yàlla rekk ñor ko diinaar akub xandeer yem ci moom kal ardi yurma fawqaha kullu qabih wala turi min batniha illa malia day am jikkoy suuf lu waay buub mën naa xëpp ci kawam waaye boo jëflanteeg moom jikko ju rafet ak mbaax ak ak melo yu sell yu kawe yu mucc ayib nga fay fekk boo jëflanteeg moom rek bëgg ko bu yoree lu muy joxe itam day mel ne ka saxaabi wa ka qatril maa yi fi dilli wa yi day mel ne taw bii buy taw du xool kër yi ñay mooy yàlla ak yéefare ñëpp lay tawal mooy am murit la muy def ci lu baax ñëpp la ci yemale du ci xool ki ke sëriñ bi murit yam njëkk a yar daana leen wax ne na ngeen xam ne seen xol yii mi ngi mel ne suuf xalaat yi ngeen di xalaat mi ngi mel ne aw jiw aw jiw la wax nag ne la cay jebbee mooy wax ji ngay wax meññat ma nga xam ne nag moom moo cay mooy mooy meññ ca garab googee ak ca meññat yooyee ak ca euh, gàncax googee mooy jëfi wax ne jëf juna nag am na ndab luñ koy def wax ne aljana ak sawara ñooy ndab yi képp koo xam ni say xalaat yu baax la dalay jural wax ju baax jural la jëf yu baax bu ko defee lépp nag ñu góob ko yóbbu ko ci ndab la ñuy wax aljana bu dee safaan bi itam ñu yóbbu ko safaan ba muy sawara wal iyaasu billahi taala waxtaan yu mënoon naa yem ci ñeent yi sëñ bi wax ne mooy mooy meloy mirul saadex yi sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar arbaatu nadamtuha xaw fa ixtiraar ba ci jëkk nee na melooy murid saade ba ci jëkk mooy dëggu ci bëgg sab sëriñ ñaareel bi mooy topp ndigalam ak bàyyi ay tereem te bañ a diingat ci lu nëbb ak ci lu feeñ ak li ñuy wax salabul ixtiyaar te mooy li te suufiyanke yi tudde isqaatu tadbir mooy say xala sa lijjën sa lijjanti bopp nga bàyyee kook suñu borom tabaaraka wa taala di def dégg asbaab yi di jëflanteeg asbaab yi di jënd ak waaye xam ne yàlla mooy maye loolu lu ci ne bëggoon nañ cee taxaw waaye mel na ne waxtu wi du ko mat bu dee bëgg sab sëriñ loolu mag ñu baax ñi wane nañ ci ay bind yu kawe ñoom Sëñ Tuubaa rek moo doon seen yitte ci lépp sëñ Bay Jaxate gis nga mu wax ne banaa lépp maa ngi ci sëb ëtt tey faxas naa lu dul yow falang naa ko yit faxas naa lu dul yow ci man mii mu rot farag naa ko it ba duutul ñëwit nga xam ne ñoom dañoo seyal seen seen bopp ak seenu bëgg ci biir sëriñ bi bëggu sëñ bi mooy seenu bëgg waxi sëñ bi mooy seeni wax jëfi sëñ bi mooy seeni jëf melo sëñ bi mooy seeni melo te sëñ bi xam ngeen ne léppam da ko seeyal ci bëggug rasulullah sallallahu alayhi wasallam muy bëggug suñu borom tabaaraka taala waxtu yi mel na ne bi nga kon bëgg googu yi mënta ñàkk la ca topp mooy jëfe ndigalam ndigali sëñ bi mënoon nañ cee wax ne sëñ bi lim digle mooy dëgmal suñu boroom ak di jëf te yàlla tax looy def nga jiital ca yéene fonk xam-xam tey jëfe xam-xam bi fonk tuub fonk jaamu yàlla te jiital ci nag tey farata yi al istixaalu bil faraidi maan qabla siwaaha waajibun qad waqaa te di ko jullee ca ca ca mbooloo ma te bañ a wàcc sariya tey wéeru ci suñu borom ci lépp te woyofal adduna bañ koo bëgg bañ koo dugal sa fonk nag qiyaamul layli lool ci murit la bokkoon sëñ bi waxoon na ne adim qiyaamal layli duuna kasali wa bi tilaawati fudula nirsili am na feneen fu wax ne sax falaa tabit ka maytatin fil marqadi bul mel nem néew ci kaw lal bi jugal bu gaa yëpp bu yëpp demee ba ñëpp tëdd nee na bal qum sarian xiina yëh jaxul wara loolu ci murit la bokkoon am am wird itam woo xam ni danga koy jëfe te sellal ko te fonk ko te yàlla rekk tax ak tudd yàlla gu bari ak jàng alxuraan ak néewi wax ak néewub jaxasoo di ànd ak ñu baax ñi moytu lépp lu xaraam ak lu ñu sipp ak lu lënt ak bàyyi kabayir yépp ak ame jikko ju rafet toroxlu di joxe sa alal ci yoonu yàlla bañ a def lenn lu naqari doomu aadama bàyyi mbooleem loo xam ni lu amul cosaan ci diina la te mooy lañuy ñu tudde bidaa te yërëm mbindeef yépp ba ci ñii mooy yàlla sax lii lépp lu ci ne waxi sëñ bi la bëgg yonente yépp gëm leen lañ war a gëm ci ñoom lépp nga fas ko bëgg gaa yu baax yépp ak nit yàlla yépp bëgg mboolem ñi gëm yàlla ak ñu baax ñi ak ñi ragal yàlla gàttal say mébét moytu xeeti rasail yi muy caay-caayi xol yi yu fés yi ak yu nëbbu fonk say waajur am ay teggin teggin mën naa ne mooy ruuxuk ak murit murit bu doon jëmm jëmm ji mooy al maanaam sariya bu tege ci alxuraan ak sunna waaye ruux gi mooy ak moo ay teggin sirru bi nag mooy ak bëgg bëgg sunu boroom bëgg genn la mooy bëgg yàlla ci biir bëgg suñu borom nga bëgg nag rasulullah yi ak ci biir bëgg googu nga bëgg sëriñ bi loolu mënoon nañ ci wax lu bari ci tànqee ko ci waxi sëriñ bi bokk na ci itam yi sëñ bi digle mooy fàggu lu lew fexe ba li ngay jëfandikoo lew sëñ bi daa wax ne boo dee jëfandikoo lu lewut la ngay jëf yàlla du ci nangu dara boo dugalee ci bu fekkee li ngay jëfandikoo dara lewu ci mënoo jaamu yàlla lu yàlla nangu mënoo jëfit lu yàlla nangu mënoo ñaanit lu yàlla nangu xidma itam ci murit la bokk xidma itam lu yaatu la ci biir ak murit yooyu yëpp ay melo la yoo xam ne murit bi war na koo jéem a xam ak li sëñ Basiru Ture fahmul musaawaat itam gis naa lu am solo la sëriñ bi murit yem yaroon dafa génne woon ci ñoom beddi konte moo xam kuloo maanaam derub yaram a ko waral wala askan wala métier yëpp da ko génne woon ci ñoom danaa wax ne id akramul ibaadi inda allahi aktaruhum taqwan bila istibaahi bu loolu weesoo tarkul i'tiraad yi sëñ bi da ko firee ne mooy at taslim wal istislaam wal inqiyaadu lillahi subhanahu wa taala neen loolu mooy am na fu mu ko firee ci biir majmuwa bu mag bi wax ne loolu mooy tarku tarkul i'tiraad yi ak salabul ixtiyaar murid bi itam faw daa war a roy ca murid ya njëkk ya ndax murid yooyee ñooy ña sëriñ bi tërbiyaal boppam yar leen def ci ñoom lam bëgg ak nam bëgg ab murid mel moo tax nun luñ bëgg rek am nañ ko ci mag ñi sama mag ju baax day wax ne ma in nuridu namusajan fi xaslatin illa wa nulfiha lada al abaai undur ila al mibraari sëñ daam abdukum fi naflihi bi kitaabi rabbi samaay wandur ila nadbil jawaadi masamba fi nafaqaatihi tatrawa ala al fuqaraay undur ila sëñ daaru njaay fi zuhdihi fi shukrihi fi xawfihi bi rajaa'i hal min mudaanin ibra faal fi himmatin ulya wa sidqi iradatin wa saxaay hal aw hal yudaana ibra aw ibra faati bi ilmihi wa salaatihi wa bi yumnihi wa dakaayi sëñ mat lamin gay yu yudaana fi talaati fi tawaaduihi liman yaati min adduafa yi muy dem maana jikko joo bëgg rek am na ku ci fes ci biir mag ñi sëñ ma nga ma daaneel ci bi yenn ci meloy mag ñooñu te mooy la ci jiitu mooy ñoom la leen booleeg sëñ bi mooy dàkk ngërëmul suñu borom mag ñi ñu ci bari ba ñuy jébbalu def nañ ay xasida am na ñoo xam ne bu ñuy ziyaar si dañuy def ay xasida waaye la ñuy wax mooy seen yitte mooy jëmmi suñu borom sëñ Masamba Kanni Buso gis nañ ba muy jébbalu xasida gam jébbaloo wax na ne saraftu saraftu saraftu himmati li himmati rijaal wa himmatu rijaali wajhu dil jalaal jëmmi suñu borom moom lañ doon dàkk ci sëriñ bi sëñ Daaru Asan Njaay gis nañ xasida gum doon ziyaaree wax sëriñ bi ne ko lillahi qad zurtuhu laa gayruhu arabi am na feneen fu wax ca biir ne ataytukal yawma dayfan atlubanna rida rabbil baraya alladi yu'lil maqaamaati maana jëmmi suñu borom mooy seen yitte sëñ ma Lamine Gueye wax na lu mel noonu ci xasida gum doon siyaare sëriñ bi mag ñi wane nañ ay ay ay yu kawe yoo xam ni dañ koo desee jàngat dese koo dese koo dégg nga waaye dara gënu koo kawe ci ay misaal yoo xam ne ci wet yëpp nag bu dee ci jaamu yàlla masalan da ngay xool ñoom waxuma la farata yi waaye xiyaamu layli rek ci misaal liñ ci meloon sëñ sëñ Mamoor Jaara ku ne xam na ne téeméer rakka la daan nafila ci guddi te wax nañ ne alxuraan la ci tari téeméer rakka yi moom sëñ Basiroo ko wax sëñ Doo Abdourahman Lo alxuraan jëpp tari ci ñaari rakka sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moom dafa seey ci bëgg sëriñ bi ba yeneen wet yi xamuñu ko ci moom waaye sëñ Moustapha Diop ci da wax na ne sëñ Modou Xayri Jaxate nettali na ko ne sëñ setu Jaxate wax na ko ne maam Cheikh Ibrahima Fall kaamil bépp la daan naafila ci fukki rakkaa ci guddi guddi gu am na ko ñu wax sëñ Mansour Diaw wax na ne néegam dafaa takkoon genn buum goo xam ni da ko takk ci baatam ngir bu naree nelaw rek buum gi xëcc ko guddi gépp da ko bëggoon di dund dundal sëñ jiiri waa daan sugu loolu lañ nettali ci moom lépp lu luñ da ci mis boo ñëwoon ci dëkk yi ñu sanc rek dangay xool yitte ñu amoon ci sanc ay dëkk si docteur Khadim mu baax mi téeréem bi mu def gis ngeen wax na ci ne ñeenti téeméeri dëkk murid yi sanc ko te mag ñaa ko sancoon nag am na ci ñenn ci ndaw ñi xëy na waaye mag ña moom ñoo sanc lépp moom te loolu du woon sax góor ñi rek jigéen ñi sax dañ daa sanc ay dëkk gis nañ soxna moom yi sanc dëkk bu ñuy wax Madina ci wetu Touba ba ñëwoon ci fàgg lu lew gis nga niñ ci mel xidma gis nga niñ ci mel maam Cheikh Anta yitte jam def ci euh, muul téere sëriñ bi yitte ju kawe la Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ teenu aynu bii liñ yiñ ci nettali ci yitte ju kawe jum ca fësal ba teen bi bënn ca jamono yooyee ak ku mel ne sëñ Manumbe Mbàkke yitte jim amoon ci liggéeyal sëriñ bi di yitte ju kawe yoo xam ne mënoon nañ ci joxe misaal waaye nañ ñoom damay wax ne sëñ bi rek lañ daal liggéeyal ak suñu borom tabaaraka taala waaye duñ liggéeyal ku may suñu borom moom man duñ sonnal coono bu jëmut ci suñu borom am na ku ñuy wax sëñ Basiiru Siise ndar ma ca ndar biñ ko bëggee bind soldaar dafa bind lettre sëriñ bi def ci benn aaya rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi maanaam bëggut a dem daal waaye diir bu gàtt lañ ca teg mu noppalu jot a dem soldaar keroog bañ ko dencee sëriñ bi dafa ñoom moom day kenn ku ne aaje woon ku la maanaam ku la tinu mbaa ku la dimbali foofee ba mu des moom fam fa mu tëdd ñépp yéemu ci mu ne am na lu gën a yéemu loolu malaaka mii laaj bi mu ñëwee ne ko man rabbuka dane ko waaw ndax hal taarifuuna antum rabban gayra allaahi xatta tasalu anhu yéen a xam ne beneen buur bu yàlla daa am benn laaj nee na malaayka yi ne picc daw noonu lañ meloon ci joxe addiya noonu lañ meloon ci xam-xam gis nañ sëñ Mbàkke Buso ñaar fukki xam-xam ak nangam daana ci wax yu bokkut te géeju ca te la ma ba léegi si xam-xam dindiwu ko téeréem yi mu bind rek firndeel na xam-xamam amaanul balidi min xatari taqlid ak rasmun fi fanni rasmil mushaf ak yeneen ak yeneen risalatum fi ilmil faraid ak téere yu bari yoo xam ne bind na ko ba ci maam Cheikh mi ma wax jazbul murid boobu téere bu am solo la boo xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko bind ak sëñ ma dem nga xam ne alquran jëpp da koo tafsir ci loo ci ci wolof sëñ Mamar Sey lampum njàmbur gis nañ téere bu am solo bi mu bind kitaabu tamyiz bayna al xaqi wal baatil te mag ñi li li fes ci seen melo mooy dañoo dëgg woon dañoo dëgg woon te amuñu woon dégg nga lenn lu ñuy ragal ak kenn ku ñuy bàyyi xel ku ma yàlla ci seen lépp alxuraanu karim boo doxoon boo boo xool ni ni seen digg ak moom da jàpp ne ñoom alxuraan rek lañu fi nekkaloon danga gis koo xam ni gis nañ ci ñoom ku bind juróom benn fukki kaamil ak ñett muy sëñ Mbàkke Kandi Buso am ñu bind juróom fukk am ñu bind ñeen fukk muy sëñ Aliou Seck wanaar am ñu bind fanweeri kaamil ak ñett te lépp sëñ Tuubaa lañ ko bindal bu ñëwee ci dajale waxi sëriñ bi nga xam ne moom borom penc mii sëñ Maxtaar Bintaloo ak mbokkam ma sëñ moor Penda gis ngeen diiwaan yiñ ci dajale nga xam ne ba léegi yooyu rek doyoon na ak murit yooyu yooyu rek doy na sëkk ak murit ak taalibe bu sëñ bi bindaatutoon leneen ñaari diiwaan yooyu rek doy nañ boo ci yokkee nag diiwaanu Baye sëriñ Sill bi ak sëñ ma Bañi Njaay ak sëñ Mat Lamin Jóob liggéey bu réy bi mu ci def ci mboorum sëriñ bi ak yeneen ak yeneen bu ñëwee ci woote jëme ci lislaam itam dañ ci amoon mën hëj bu leer sëñ Moussa Ka dafa wax ne lu ma la wax ci alxuraan laa ko laa tuxale wala hadis wala ci daam laa ko jële mën hëj bu leer boo xam ne tey maanaam doy na sëkk jërut di faggu di wuti leneen lu ma la wax ci alxuraan laa ko jële wala hadis wala ci daam laa tuxale yooyu daa day daa may sëkk bu ñëwoon ci jikko ju rafet mën na cee wax ku mel ne sëñ Ahmadou Bousso mu sëñ Bousso bi nga xam ne dañ ko da dañ dañuy wax ne meram kenn mënu koo gis ci moom bu ñu ko laajee lu tax day wax ne man damaa gisut ci àdduna lu jara a mer am na ku ñuy wax sëñ Mahmoud Mbegare sëñ bi mas na ko yebal mu yor jësi di ko ngànnaayoo ay gars yi dogale ko bëggoon a nangu alal jum yor mu ñu jëflanteeg moom la leen soob ci moom ba dem te génnewut jësi ji ba mu ñëwee ñu laaj ko waaw lu tee nga jëfandikoo jësi ji mu leen damaa merut boo meroon génne ko loolu yu mel noonu mënoon na cee nettali yu bare bare bare bëri sëñ Aliou Seck wa daan wax nañ dara wax ne murit boo xam ni ñëw nga am nga dal ku it am bàyyi nga fi ku lay ñaanal foofu lañ nekkoon bu ñëwee ci ragal yàlla ak dëggu gis nañ ku ne maam si Anta lettre boo xam ne ñëpp gis nañ ko mu wax ndigali suñu borom yeeg ngooy ci alxuraan ak sunu yonte bi ku ko defut faqad tabarratu minhu zahiran wa batinan maa yow séqunub dara nga xam ne noonu foofu lañ nekkoon ak seeni taalibe bu dee ci toroxlu gis nañ ku mel ne sëñ bay jaxate wax ne fee jant bay fenkee ak fee muy xaloo sawe ji yirif ko ak laxasu yalwaani laa yemale bu dee isaar noonu lañ ci meloon gis nañ ku mel ñu wax sëñ Moor Njaay tàngaar wax nañ ne sëñ bi ci mas na ko wax ne ko yaag isaa jende suñu borom xamal na ma ne dana am ko ci xam ne dana jël ay bëtam mooy dana ko nattoo ngumba mu ne ko sëñ bi de maa ngi lay ñaan nga ñaanal ma sa borom mu teg ma ko ndax Isa daa am liggéey bu muy liggéey ci biir ak njabootam te liggéey boobu mënta ñàkk na ma ko teg wax na ne ci at moomee la bët ya muuru ba ni fi jóge gisaatul loolu mooy isaar ànd nag sajaa ànd ak dégg nga njàmbaar gu mat sëkk gis nañ sëñ Mor Maane ak sëñ Aliou Diouf Lambaye ak sëñ Babacar Cargaan euh, lañ tontu woon buur ba ku ne xam ne loolu ak njàmbaar la ànd ak dëddu àdduna itam boroom borom Daarul Muxti mas nañ koo tabaxal liggéey boo xam ne mboolo dañ caa sonn lool ab néegu ñax waaye nag ñu tabax suuf si ba mu ñëwee di ko seet si da leen wax ne néeg bi de mucc na ayib lool waaye tabax bii rek moo ko yàq ndax àdduna tabax xaju fi waaw foofu yi lañ nekkoon nekkoon ñu sàmm waaye boolewuñu ci woon par parloo bëgg seenu sëriñ bi sëriñ bi génnee bi sëriñ bi ñibbee delloo fa suñu borom gis nañ coono yi jànkoonteel ci kenn ku ne yitteem mooy ñëw Tuubaa waaye mënuñoo tiim sëriñ bi itam sëñ Mansour Diaw am na xasida gu neex gu muy wax ne abki ala bu'di Tuubaa daari qudwatina qutbil kiraami habibi malikillaahi kon murit bi itam faw mu rey ci mag ñooñu faw mu xam ne ñooñee ñooy murit ya dëgg-dëgg yitteem di roy ci ñooñee foofee nag lay dëkke dëkk bi ñuy wax tuuba Touba dafa am zahir am baatin kaw gi moom sunu kalaas gi ñoo fi ne di def yu leen neex waaye baatinu Touba nag du ñëpp fay dëkk mooy la suñu borom ci alquran ne alladina amanu wa amilu salihaati tuuba lahum sayiduna abdullahi ibnu amr ibnu al dafa mas a laaj nen damaa mas a toog fa yonente bi booba ndaw la yonente bi wax ne tuuba lil xuraba nee na am ku ko laaj ne ko ñan ñooy al xuraba wu mooy ñi ñi moom tuuba waa tuuba mooy ñan nee na mu ne ko unaasun saalihuuna fii unaasi suuin kathirin man yaasihim aktharu min man yu yutiuhum nit ñu baax la doon nekk ci biir mbooloo moo xam ne ñu sàggan la ñuy doon nag moo tax nit ki xam ne daa sàmmonte ak mbaax moo xam wét na wér la wétaliku la moo xam adduna sépp yàqu na itam nga nekk ca la fi sëñ bi bàyyi woon mooy ca te bañ cee déglu kenn bañ a geesu kookee mooy am murid as saadiq yàlla na yàlla booleek boole ca ñooñee maa ngi jégalu bu baax ci guddal gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.